déedéet taxaw taxaw taxaw nga ne ñan ñoo amul le ñan le motif. dama ne la man. Mhm. man Khadija Samake. Mhm. jël ko téléphone am yow kii kaay ay wax laa bëgg eh, nga ni jaaykat nga ni. maye la man Khadija Samake mii. Mhm. surtout Seydina Mouhamed mii am dinañu tam de sii di mi ci càlle. Abdourahmane borom junj ñi. réew mii du ma fi njuddu jee du fi madantaan aw ma fi le motif. te ci réew mi laa dëkk nag. Mhm. te damaa trouvé ci réew mi. Ah, kan moo fi amul am le motif le motif faale. le motif li nga wax rek ne de. waaw kon sa moo fi am ah. <laughs> a a saf sàpp ak sama kii ngi nii. mais Khadija fan nga nekkoon ba maam di dëbb réew mi di wax nga toog jàpp sa ñaambur. waaw émission bi dañ koy arrêté de man waxuma ci kenn ci sama bopp laa wax. Mhm. sama niveau laay wax. Mhm. ki jógee fii dem wuti ji diplôme am. xam nga ñan laay waxal ñi am Canada. Uh-huh. wala ñi am diplôme Côte d'Ivoire wala Nigéria wala Burkina. man ñooñu laay waxal waaye ko amul benn kayitu suukar tubaarikàlla aw maa jawa. yaakaar am nañ ne maa koy jaay. ndekete na am na kii. xool kii nu mu tudd. ay Aysa Rasul dama ne la attestation bi ci réew mi Xadija sama kee koy fii ci digg réew mi ci digg Pikine boobu. kon jàmm bi léegi dafa am kii ak accréditation ak yooyu. attestation bi Mbaye Kouthia. ruubeekat bu mag bi man maa ko am digg ci mbaxu Pikine. yow bu a génneel kayitu suukar fii. yow eh, eh, eh. mu kii ministre de la santé bu la woon. raam taw de barkaar ko attestation. yow kenn du la yow. jaaykatu li jaaykatu diw yi amul laam. <laughs> attestation. Burkina Faso Saint-Louis. mën naa ru fas waaw léegi léegi léegi. wax mi nag preuve à la. mais allé. preuve daa weesu lii. allé déedéet. Eh, eh, eh, kon lan moo tax du jaay kon lan moo tax du jaay. xam nga lay jaay par weer. maa moo daan jaay maam jaay moo daan jaay ren ren nag kuy jaay loolay problème. non non yow daa bàyyi maam daaw moo doon jaay. ren kuy jaay. ren kan mooy jaay yow ñaata ngay jaay par weer. tubaari kàlla daal. Hadiza mhm. Samake ñeenti bi yu mag ci réew mi ñaar Gambie ñaar Sénégal. Gambie ndamoo ma ko tiitaroo ma ko xam-xam man àpp ay kàppo ñoo jënd ci man tubaari kàlla macha allah. ma nekk international. Mhm. te ay wax mayu ma ko. Mhm. perturbation mayu ma ko. Mhm. xeex mayu ma ko xuloo mayu ma ko xam-xam ma ma ko may. e eh, mbay la. mais yow da nga am jaar-jaar ak yeneen jaaykatu diw yi wala laal la. waaw non man aw ma benn. Ah, sama bopp laa gën non danga dañuy wax nga nga nga tudd ne man aw ma fi lomotif defuma fi waxuma fi xaw ma lan moo tax aw ma fi lomotif defuma fi waxuma fi réew mi kenn xamuma ci liggéey dignité personnalité dafa am ko fi am lomotif ci béy sama maam sallallahu alayhi wa sallam am nañu ci Kombe ak Sidi mi ci Thialé am Abdourahmane. Eh, yaakaar jiw yi li leen manqué woon. li leen manqué woon. ma dalaay sama jox nga ma. Eh, monté ma aas. Uh-huh. monté ma ay wéet. jox nga ma naturel. mbay baal tëggee bi jaaykatu diw baa ngi nii toog. waaw le motif bi la mbay. le motif bi maanaam dama la woon ne la sama palmarès dafa rafet. dafa riche mhm, mhm. macha allah. ajaratu kumba bi tey mooy sama yaay. ñeeño mhm. bala mañ sa bu mag bi ci réew mi. alaaji sëriñ sama ke borom résidence bi ci mari say sama baay. e nee naa la yeneen tibey sama maam man deretu yeneen tibi laa. ah ñooñu ay ma trouvé ci réew mi am ñeenti biti. ñaar Gambie ñaar Sénégal di ko ruq ba mu nooy kon kaa bi la. ay oto ay oto la ñuy kooku il a il a man bëri gars yi bëri nañu ay oto de jaaykatu diw yi te yéen a bokk waaye tubaari kàlla macha allah xale yi bu bu ñu laalee seen valant sama ke laal valant kon kaa bi lan la foo ne yaa ngay bëri de mais jaako diw yi jamono ji ñu wax ko ñu bañ ko am na ko lem geenam toog loolu loolu loolu lu waral loolu kan la waaw loolu tamit war nañ si wax lii loolu am na am na jaakatu diw boo xam jamono dafa lem geenam toog kenn déggatu ko waaw yow yow yow xarisa nga sëkk maa ngi jaay maa ngi digg Pikine yor sama attestation. <laughs> mbay lomotif bi lay doon. man de eh, ah. ah am na leneen lu xew ci réew ah, de lomotif bi war naa jot a ñëw man jaaykatu diw nee na moom am na jaaykatu diw boo xamante ne lomotif <laughs> mi bi am na lomotif kooku la. mbay man dama ne la mhm. ma la kenn dafa am la motif waaye dama ne man ci réew mi laa dëkk. Mhm. xam lépp sama baay dëkk ci réew mi. Mhm. ma dëgg dëkk Pikine. xam nga xam zo bi nu muy tëddee nag. Eh, yow noppi waaw. zo mm-hmm. bi dama xam nu muy tëddee. <laughs> sama assistant la. man mm-hmm. sama assistant dañoo tubaab de dañoo yor. ay kii boo ko la wóoli tànga ne. Mm-hmm. <laughs> sama wóoli maam yi tubaari kàlla macha dafa yaru. mais lan moo tax doo def ay direct yooyu di kii. mais yooyu ñàkk temps la xam nga tamit wax bu suba ba ngoon wax ba ñàkk doy xeeb. gémmiñ di meew. wax ba xamatoon wax Mm-hmm. wax bay déliré. Mm-hmm. non Mbaye man aw ma a boobu nag tubaari kàlla. Mm-hmm. ñu naa la ñeenti bitik ñaar Sénégal ñaar Gambie. te dama koy roq ba mu nooy. sama bitik bii barki Cheikh Abdou Karim Mbacké yow xam nga ne tubaari kàlla boo duggee sama bitik bi xam ne xale yi jaay man ci laa yooyu. cag-cag yi dañuy livré cag-cag yi cag-cag yi amuñu temps dañuy livré ji. Ah, yi ci bitik yi di ruube. livraison yi bu amee dañuy takk dem. kon kaa mais mais mais. mais mais ñaar waxuñu waxuñu ñaata ngay jaay. mbay dafa ndax ñaata ngay jaay par par par jour. mbay. Mhm. régler sa bopp. Mhm. man ci réew mi laa dëkk. Mhm. du ma fi njëtu jee du ma fi madan taan du ma ne la temps laay jaay <laughs> du ma ne la ndàngo mi bërigo laay jam. du ma ne la ndàngo mi pan laay jam. waaye daal xamal naa leen ne réew mi. xale bu jaay maa ngi jaay xale bu jaay maa ngi jaay. kaa bi lan la. mais mais mais mais Alioune kii li mu wax doy na waar trop li mu wax doy na waar trop ah. ah. ah, loo loo jàngatee li mu wax. xoolal ñii ñu ngi ne jóg ñii fi ñii fi ne nii. jànkati diw yëpp dañoo yàqoon seen yaram ma réparé leen. ñu ngi nii ñu ngi fan. parce <laughs> kon kaa bi lan la mbay. ah jànkati diw yi yàq nañ yaramu jàmbur yëpp ñu ñu def leen ay seet di ay rab xale yoo xam ne bu ñuy génn dañuy mël faw ñuy sol ay jëlbaax Xadija sama képp ban kii yàq yaram nii lu tax doo ko wax waaye man aw ma taawam parce que nee naa la yow tamit nag tubaari kàlla ñu am attestation laay waxal xale yi jàng ji woon am xam-xam. ñi ñuy laaj chiffre d'affaires ñu naan lan mooy chiffre d'affaires xaw ma. Hmm. dama ne la man Khadija ma eh. man Khadija Samake international. xam nga Mbaye Kouthia maa ngi moom xamante nañ yooyu la. Hmm. <laughs> moom xam na koy Khadija Samake Khadija Samake xam na koy Mbathia Mbaye Kouthia dama ne la man xale yi am attestation laay wax. Hmm. quatre boutique ci di réew mi ñaar Sénégal ta ñaar yëpp a ngi fonctionné. ñaar Gambie te ñaar yëpp a ngi fonctionné. macha allah tous du bois. te incha allah bientôt léegi beneen bu ne mut ubbiwaat kon kaa lan la. léegi léegi man am naa jot man. di eh, di kaa. Eh, eh, maam Ndiaye moo la ëpp niveau de parce que ñoom. ñi ngi si foire yi yow mosoo dem foire doo dem foire doo dem fenn. waaw loolu laa bëgg la moo tax yow Khadija. waaw doo dem si foire yi doo dem bëgg na am xaalis. ñu di dégg nit ñi di dégg sa tuur ci kaw te gisuñu jëm jaag la moo tax. mais xam nga adduna dafa di ku ne ak ni ngay liggéeyee. Mm-hmm. xam nga tubaarikàlla macha allah nit a ngi ne tekk di faj lu kuy bur dul faj nit a ngi ne tekk di encaisser loo xam ne nit day def bruit te du ko encaisser xanaa xamoo leen loolu foire yàggul Mami Evans foire am bi programme woon naa pour dem suñ borom moo ko tudd loolu foire yi moom yàggul. est-ce am nga yëgam njëgam nag. la ah ndax amoo jógam waay tamit ah. cent cent cinquante mille nga. <laughs> du wéeroo mbay. mbay yow wéeroo de. <laughs> non amoo ko nag soo ko amoon def wax def ko waaye ah. yow xam nañ la nag ah. mais mais waa Pikine fii laa taxaw saako ñu ne ñu ne maam Ndiaye lañ xam xamuñu kii ma ne xaar ma dugg. <laughs> ñu ne kii dem lañ xam xaw ma. Euh, euh, euh, Eva Eva Aïssatou Sour ak Eva Eva Eva Solution lañ. mbay baal ruube baal jàmb. Eva tamit. jàmm kàddu Eva xaalis gis nga. mais mais euh, si gàmmu gi. ñeenti xolal ñeenti gileem la jox adiya sëñ bi ñeenti gileem. Eva d'accord Eva. barkeel mais mais ay oto waaw mbay lan moo tax mbay mu mën a jàmb mën a ruube. waaw d'accord en tant que comme dem nga yow ba euh, jàkkaarloo diw bi mun nañ ne euh, ki nga xamante ne ci ñoom. maanaam jàng na am na diplôme ma ñëw est-ce que jaaduwul yéen seen biir jaaykatu diw yi euh, ngeen ngeen xool ni ngeen liggéeye seen biir avancé moo gën am ki andil këla tey itam tey moom yaa ko bees <laughs> ki laaj nga ma lu ma neex ndax tubaab dama laa bëggal danga ma foofu danga ma fa laaj lu ma neex <laughs> deux l'an hmm. ba léegi ñaata at la l'an deux mille ba léegi ñaata at la. deux mille ba deux mille vingt trois. ñaata at la loolu yaakaar naa vingt ñaata du vingt trois ans. déedéet deux mille laa la. l'an deux mille. l'an deux mille. waaw ba deux mille trois ba deux mille vingt trois ñaata la. waaw vingt trois vingt trois ans. déedéet trois ans. vingt trois ans eh xale dañ lay sinap de. déedéet dama ne la yow yow yow déglu ma xale du ma sinap déggu l'an deux deux mille. waaw l'an deux mille. waaw deux mille laa la wax 2020 laa bëgg a wax. ah ok pardon dama jum 2020. waaw ba 2023. trois ans. trois ans. waaw est ce que mës nga dégg Khadija Samake bureem. déedéet. est ce que mës nga dégg coowam. Ah, amoo bay amoo bay dama la bëgg a laaj leen. te amoo bay remoon est ce nga ko dégg ci benn bur wi. déedéet. di liggéey. Mhm. gëm boppam. Mhm. trouvé ci réew mi moonte réew mi ku baax xam nga Khadija Samake ndax ay produit am dafa baax te da koo jàng te dafa am xam-xam. Mhm. moo tax nag réew mi mënoo fi def benn fuli wala benn manka wala benn yëfi def man yëfi def bu ma dee teral du ma nee naa la yeneen ci bay sama maam alaaji sërif sama kin ci mari say mais est-ce que est-ce que eh arrêté dama ne réew mi ma fi def folie bu dee folie ba may may taraanga mm-hmm. ak waxi dof ak manqué ak jaay sama dignité non kon doo dégg ñu ne xadisa te maa ngi jaay mais jamono ji tiktok bi tiktok bi ci la xale yi di jaay xale yi di jaay te yow gisuñu la si ah ah xëy na yéen a bëggul naaru Fass international la naaru Fass man naaru Fass ba tey international la mbay mii ruubeekat la waaye xam nga ne naaru faas ba te international non ñemewoo ñu moom jaay kay li mu waxoon dëgg la de nee xale yi ñemewuñ ko te ku si génn mu xoolal te suñ ko mu tey sa gat dóor la nga delluwaat <laughs> jaay maam maam Ndiaye Savon gi naka go jàkka go jàkka. saytaane aywaay moom ñoo xew ko waa barke suñu ji wax wala suñu jigéen si maam dem si Eva Fosen dem si Eva solution. waaw man réew mi xale ndax gën na ma fee xew. dem dem ah. réew mi ndax xale gën na ma fee xew ci produit yu baax ah. waxuma ay wax ak bruit de mhm. waaye jaay lu baax mhm. xale gënumaa xew ci digg picceen gi pikin gi qualité quantité ku yaramam yàqu ñee la dama nga wëri naaru face bu te Khadija Samake international mbay arrêté sa roube bi nga nekkee ci mais réew mi xale gënuma fee xew non non ba pare rek ba pare maam Ndiaye mi ngi maye ay piling ak euh, Eva solution ñu ngi maye ay junni junni gaam la teg di ko maye te ko maye ko waaw mayagoo de daal lenn moo tax mayagoo. gis naa seen maye nga gis waaye man saa yi su ma xëyee maa ngi def lu baax ndax ci lu baax laa jug. non non maye piling yi ne wool gars yi naan ku dugg tey ma may la piling loolu moom moo mosoo ko dugg def promo ku dama naan maye naa vingt personnes gaam ma ne maye naa dix personnes gaam. mbay bàyyi ruube léegi kañ ngay maye kañ ngay def maye te def téeméeri gaam wala lii ma ñëw taxaw seede ko. waa da ngay ñëw ñu live incha allah loolu après dañ koy wax ci code kañ ñëw xale boo bëgg ma teral ko ma teral ko. kañ nga ko kañ nga koy def Sénégalais yi naa leen dugalal numéro ku ma ko kañ nga koy def ma ma ma kii ko. waaw léegi rek incha allah. ah kon ki non Aliou kii mënul waay. yow wéeroo léegi rek incha allah non mënul kii mënul. Eh. Ah. yow su ma mënul woon doo ma wër ndax yow waroo ko mënul. ah mënul waroo ko amul buri waroo ko kenn xamul. Mhm. arrêté. Eh. <laughs> ruubeekat nga. waaye xam nga ne man tubaari kàlla. réew mii dama fay marqué sama empreinte su ma fi marqué wul woon sama empreinte déggoo sama tur déggoo samay jaroolo ci lu baax ak personnalité ak dignité ambay ah, kon doo ñëw piki piki. naawru faaw taa bi la bàyyi ma wax sama. mais xamante nga ak ma jaaykatu diw yi. non diw yi macha allah. xamoo leen xamante woo ak ñoom. nii rek am na ñu ma ci xam am na ñu ma ci xamul. parce que ku ne soxla ma xamante ne. Ah, ah, ah, eh, eh, eh, xamante xamante wu leen defe naa non jaakatu diw yi soxlaw maa xamante ñoom ndax ku nekk yaa ngi sa waar ñu ngi seen waa di ko ruq bam nooy ma nekk sama waa di ko ruq bam nooy nekk xale rafet jonga ma di jaay produit yu baax kon dama soxla xamanteeg ñoom cim lu may xamanteeg ñoom kaa téesante werante xëy di wax ba bajante bi sax loolu aw ma temps boobu y' a pas de temps. di wax sa gémmiñ di meew. temps dafa cher de. <laughs> xam bu xale. Mhm. lu la mën a jëmale kanam. Mhm. mooy personnalité dignité. Mhm. ak riis. xam nga nag tubaarikàlla fi ma bokk dañoo riis mun ma def benn fël arrêté. mais mais mais xam nga eh, eh, ñaata kii eh, am nga jëkkër. <laughs> woy sama ndey y'a pas de cere y'a pas de taas y'a pas de wóogu. kan moo am wóogu kan moo bu zone naturellement. <laughs> ah dégg nga mi ngi cokkaas xale yi bu ñuy sinap dañuy def effet. dama leen a faale. <laughs> damaa faale damaa faale man benn ku nekk ci gem di jaay li may. mais attention mbay ñun li ñuy filmé amul effet effet amul dara. Mm-hmm. Eh, dama ne la eh dama la man. dañuy bu ñu bu ñu kii dañuy euh, seen effet la ñuy. mbay ko caa. barke Serigne Fallou Mbacke faale wu ma benn xale. man xale bu ma écarté ma écarté la. Mm-hmm. xale bu ndaw laa écarté li. xale bu ndaw laa. doom jooyu jëkkër laaju ma xool say tànk xoolal ma xool say tànk yëkkati xale laa ma xool say tànk yëkkati dama ne la xoolal xale laa dama ne la xale laa doom jooyu jëkkër laaju xale bu ma écartel ma te ma jongama forcé wu ma sama jongama naturel laay def du ma maquillage yow mbay bu ma wax loo waay arrêté wuy hmm. ma ma xool say def defal nii om oh yi. yow eh yëkkati say om. yow mbay yëkkati say om yëkkatil ba xam bref eh, man bref lay mbay bëggul lëndëm. nay leer ah nay leer mbay bëggul lëndëm yëkkatil. yow bàyyi ma yëkkatil yow bàyyi samay loxo mbay. non non eh maam eh maam bee du yëkkati na. ñëpp a yëkkati yëkkati. yëkkati loxo jàppaade jàppaade tey jàppaade li ngay diwoo baax na wala baaxoo. yow mbay wér nga yow. apprécié na mbay man aw ma cere càq de <laughs> aw ay woggu tamit. <laughs> te client yi ñu fi fekk ñëwuñu pour réclamer seen teint dafa fii ku cere baa nga jaaxle Xadija sama ki ngay wër. <laughs> mbay mbay let's go mais <laughs> let's go waaw mbay man dama sonn man pikin gi ba fi ñëwee ba tey def naa fi un an quatre mois damay xëy di réparer yaramu jàmbur yi ba jant bi sax i mbay luy loolu jàngoo jongoo mm-hmm. nga xëy teg say mbànd ak say pëllu di jàmb yaramu jàmbur yëpp yàq nañ leen man Khadija sama ki damay xëy barke Cheikh Abdou Karim Serigne Fallou rek laa gëm nit di ma woo Khadija lii ni ni la ma di jaay nii laa diwoo sama yaram bi am na lii am na laa am na lii taas bi nan laay def ba mu de yaramu jàmbur yëpp yàq nañ leen luy day loolu Pikine fii man Kër Massar sax sama place ni Kër Massar dama fay gis Pikine laay a nekk mhm. ndax yaramu jàmbur yëpp a yàqu xale yëpp a cere càq ñii ñoon gi nañ arrêté tamit yaramu jàmbur maa ngi nii nee naa leen a pas de cere jëlal samay tànk. Mm-hmm. la ilaha illallah. y' a pas de tasse. Mm-hmm. y' a pas de vergeture a pas de rew. Mm-hmm. naaru Fass bi te Khadija sama ki international borom attestation. nee la du ma étiquette buy lang. nee la du ma étiquette buy lang. tubaarikàlla tampon laa caché. xale yi nañ man xale bu ma waxal dootoo ko defati. kon daal gars yi dañoo dem jàpp jàpp xale bu ma tubaarikàlla midi cinq ma écarté la. Khadija yow ni ma déggee si ni ngay waxee day mel ni eh, xale yi. bant bu gudd lañ lay laale. def na damaa mës a gis xale bu ma directal baa mu laayi fal ma man xale bu ma laayi fal baa nga directal ma dootoo ko defati. nga nekk ci réew mi trouvé ma ne ci réew mi yor sama ñeenti bitik ñaari bitik Sénégal ñaari bitik Gambie yëpp di fon Sénégal yàlla di ma teral ma am ñaanu nday am ñaanu baay bokk ci famille bu riis sama yaay kenn du ko waxal lu ñaaw ci réew mi parmaresam dafa rafet demal caare gaar sama baay di alaaji sërif sama ke parmaresam rafet e man par famille bu baax laa judd hmm. am parmares bu rafet sama famille am parmares bu rafet man ku ma ñemee laay fal ku ma wax lu ma tere ndékki ma wax lu la tere añ na benn xale génn laay fal ba kii am na eh, fu. illa ah. ah. ma benn influenceur. lu ma wax duma ci dellu. ñan ñooy neexal influenceur yi xaw ma. yow ci neexal dakk lañ dëkk. Mbaye ah! Kouthia ci neexal lañ dëkk xoolal man neexal ma benn influenceur. muy jigéen ma ngay ma ngay ma ngay jaxase muy jigéen ak boo xëyee xale yi la nag. ma xale yi la. xale yi nañ ma bippe ay ku ma bippe. la menacé rek eh. ay ay eh, mi ngi menacé rek ale. baax na léegi xay. ale ku ma bippe dootoo ko defati ndax xam nga boo ma nee jàkk yow nee nga ma jàkk. Mhm. man Gambie laa mbapatee ak Nigéria ak Burkina ku ma bippee doo doo ko def daray ragal newul ci man xool nga ma nii nga ma nii man ku may xool di ma bippee man ragal daa ci man sama bëri danga ci gis ragal ba pare Abdou Aziz Ndiaye di sama mag dëkk Pikine xam li ci biir Pikine lépp aji ana aji mas mu ngi fi sama xarit maa ngi koy nuyu au ku baax ku ma bëgg tubaarikàlla macha allah eh, ah sa wax bi suufee na de mbaax da ngeen dóorante xasa xar la de. doorante ci xeer yi. da ngeen doorante de dafa mel ne ànd jigéen. ndànk rek ànd jigéen ndànk rek. ana aji maas. mbay sama client yi toog nii gis nga leen ñu jógee ba postard. waxoo si de ana aji maas. ana aji maas. may la mu ngi ci jàmm. yéen a ngi déggante comme ni ngeen mel. maa ngi maa ngi si jàmm. kooku sama kañ kañ nga gëj a dégg aji maas. chaque jour ñu déggante ay wax dégg kooku sama kooku sama doomu ndey. ak galañu yii. lii am am na lu xew yaa aji maas am na lu xew de. ki yeb ki yeb bi xaajal ko eh. aji maas Eh, aji maas daa mel ne xaw ma kan yéen ñaar nag ay doomu nday ngeen ay doomu nday ngeen woon mbay ba tey ay doomu nday lañ man duma jàpp di bàyyi duma war duma fecc ko lore kooku sama lépp la maay moom mooy man xanaa loolu ay wax jeex na dangaa mës a dégg naar faas goti bote comme amal guerre ci réew mi da nga mës a dégg kum teesanteel da nga bëgg si kum waxanteel da nga mës a dégg mu ne bi diw na ma baal àq wala daam huit assistant laa am te ñoom ñëpp jàmm laa séq ak ñun ak salaam. daxew ñaata cag-cag. xëyoo dikkale di daxee. cag-cag yi tubaarikàlla macha allah dañuy gaar di dañuy gaare di liggéey rek. cag-cag yi bari nañ. Moustapha mu ngi fi tubaarikàlla. Magzal dégg naa da ngay rek nag. Moustapha mu ngi fi may Makeup international kon man ñoo ko bokk. Ameth li mu ngi fi. Baye Ga Baye Ga Baye Gaawaan mu ngi fi. Gaawaan Seck mu ngi fi fii li fi nekk am mat na huit personnes ku xëy da ngay jël sa wërsëg. nee naa la ñun kaawuñu teesante wuñ dañuy liggéey. le travail day dàq rek day dàq ku ma dàq. da dàq rek assistant Bango mu ngi noonu ñaata at mu ngi fi. te dara ñaawul. Hmm. ah day dàqale ay mbay mbay lan la mbay baal tëggee mbay baa xam nga ne man ragaluma hmm. xam nga loolu nga dem caare gaañ nga laajte kuy Khadija sama kii. ragalul de. man tamit ragaluma aji maa sama xarit la séq ñu lool mais dama la a ne sa tëggee yi man ragaluma gém bi amul xale bu fi nekk laa la wax bu ma mën a wax lu ma teree ku ma wax lu ma teree léegi ma wax damaa mën a defar diw nag am attestation jàng am xam-xam waxuma benn dof wala dama xëy leen café Touba nga bàyyi ma waaw baax na wala may ko café <laughs> del déglu del xool